bi ñuy commencé di ndërmal un week-end un quartier am ñu bokk ak ñun bennoo jàpp na dañuy tappale te ba ñuy taxaw ne dañuy accompagner les femmes yi nga xamante ne ñoo yeewoo fii si Thiès dañ ne woon dañuy yëkkati une somme de deux cent millions jàppale leen ko waaye deux cent millions yi soxlawuñu intérêt soxlawuñu pourcentage parce que nit boo koy dimbale da koy jàppale te yàlla tax nit sooy ànd ak moom da koy jox doole mooy lan nga yokk ko mu mënal boppam liggéeyal boppam am mën a jëriñ njabootam ak ñi ko yaakaar bi may def un week un quartier dama ne groupement bu njëkk a pare dinaa ko jox indil ma carneem dinaa ko jox vingt millions mu commencé liggéey bi ma ko waree am ñu taxaw ne loolu du am far ñii ma Amazone bi nga xamante ne mooy mouvement jàppoo ànd liggéey ñoom ñoo njëkk defar seeni carnet mënoon naa leen jox chèque waaye du ma ko def comme dëkk bi réew mi dafa tëradi man nay leer masali bëggul lëndëm nay leer saay yéen ma njëkk a jox seen carnet parce que bokku ngeen si ñu gëm financement yi moo waral seen vingt millions liquide baa ngi nii ma indi fas yéene leen ko jàppale pour ngeen liggéey xaar sàll mooy trésorier bi danaa ko remettre léegi suma pare paree publiquement ngeen gis ko seen xaalis a ngi noonu laaju ma leen intérêt laaju ma leen dara la ma bëgg mooy may naa leen diir juróom benn weer ngeen liggéey commencé remboursé ngeen fay ko waaye laaju ma leen intérêt ma leen dara ouverture bi la deux cent millions yi dañ koy continuer di ko woyal quartier bu nekk danañ fa dem lim bu ñu soxla bu ñu ko matalee dinañ leen financer de cinq à dix millions comme ñi ñoo njëkk a pare ñoom la ñuy remettre vingt millions yi suñu borom suñu yaayu séeréer si. nga xam ne maire Gamou Dione moo leen jiite. dañ ñu sollicité woon nañu suñu quartier Wango ab teen la ñu am. te teen bi ñu am maire yi fi nekk dañoo jukki ba seen loxo yi ndorootul jukki. ñu ne ma leen de la ñu soxla si yow li nga dimbale ñu may ñu pompe. ma na leen la ngeen soxla dinaa leen ko defal. moo waral ma jënd moto pompe fii. mais Mangane dina ànd ak yéen tey. dana leen ko installé lépp lu si war si ay tuyaux dinaa ko fay jëndal leen ko ngeen ñëpp xam nañ Pa Gueye ñëpp xam nañu adjudant Gueye ñëpp xam nañu imam Dame Sakho seen xarañte seen njàmbarte seen gëm bu ñu gëm la président Macky Sall ak défense bu ñu jàppale président Macky Sall fii si Thiès muy si wax sa xalaat yi muy si panel yi muy si débat yi muy si fépp moo waral ëllëg lundi si kàttan yàlla suñu borom ma fa yéene leen jox ñetti billets Makka ñu doon ziar ji yonent bi sallallahu wa sallam da koy génne parce que man je fais du concret je ne parle jamais pour parler réew mi li ko yàq mooy politique ku naxaate nit ñi kenn moomu leen ku leen dimbale ñu dimbale la ku leen nekkal ñu nekkel la ku leen jàppale ñu jàppale la loolu rek moo fi nekk leneen nekku fi man kenn lay taxaw kenn lay jàppale muy suma mag di suma xarit muy le président Macky Sall parce que moo kenn mu deful moo fi liggéey lu fi kenn liggéeyul moo fi tabax lu fi kenn tabaxul ku mel noonu askanu Sénégal ñàkk ko danañu ñàkk lu doy waar bu demee tey ba joxoñal ñu la personne du premier ministre Amadou Ba askanu Thiès askanu Sénégal war nañoo takku liggéey ngir fal ko au premier tour ñu continuer waat liggéey li nga xamante ne moom la président Macky def di def appel à l'unité pour la consolidation de toutes les forces vives de Benno Bokk Yaakaar wax ji ñaaw ji jaru ko nañu yeneen te jàmm liggéey autour de l' essentiel muy défendre le bilan positif du président Macky Sall fal suñu candidat Amadou Ba man ku may dimbale bu ma utal noonu xuloo ma kenn jotew ma kenn yónniw ma kenn yabalu ma kenn Cees ñëpp sumay xarit lañu